di ci woo ñëpp di ci gërëm ñëpp ñi nga xam ni nag jóg nañu ñëw fekk si ñu yor seeni mbootaay ne dañuy ñëw ànd ak ñun jàppale ñu ci lii ñu dëgmal muy jëm élection locale bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ni li tax ñu koy def ñun ñëpp dañ jàpp ni Médina ni mu mel am na lu ko gën te ñun am nañu pas-pas am nañu xam-xam am ñu dogu pour jéem a góorgóorlu dajale ñi baax ci Médina ñi fi gën ñi mën ñu ànd liggéeyal askan wi bu nit jógee ni man maire bi laa bëgg d'accord naa ci waaye mën naa ko wax li mu wutaleeg yow man bëgg naa maire bi waaye liggéeyal waa Médina moo ma yëkkati s'occuper de la Médina c'est bien mais s'occuper des Médinois c'est mieux